tey journée bi tàng na. bonjour monsieur. ça oui, ok voilà la sommation. non mais attendez encore une troisième sommation non ça attendez ça commence à bien faire quoi qu'est-ce que ça veut dire ça. dama am benn mission bu bu grave bu ma la bëgg euh, proposer quoi. waaw tu connais le préfet waaw bi mooy troisième fois muy indil sommation quoi et puis ça commence à bien faire euh, su fekkee yow tu es dispo xam nga ñu jéem a xool nu ñuy tegee benn deal bu leer euh, nga jëm ko sud waaye ñu mën a am benn affaire bu graaw ci moom. xam naa ni bëgg na jigéen trop trop trop donc donc euh, a jaar foofu quoi su su ko jëree sax proposer ko xaalis benn somme boo xam ne nii c'est c'est assez conséquent pour mu may ma jàmm quoi. gis nga man maa lay rey fii léegi mu jeex wax mu jeex yow da nga yaba tor soob tor eh du ngeen di kaat jóg leen takaw waay histoire laay bañ te yéen da ngeen bëri histoire trop. fuuta naa bi ah. eh kay ma wax la benn affaire. sa këral. bi may wax a gën a garaaw. ah. mairie Sénégal am na ñu soof. waaw ñu soof. tali bi tali bi suuf si suuf si ki ne dan ko dul bale eh dopoo waay daxa eh, den <laughs> toog yaaram ah eh, wala li ma moo ëpp importance li si wax ko suuf ne na ko bale dañ ko fi teg pour mu liggéey bu mënu liggéey mu wàcc ma ñëw jël ah? waaw amiin man moo xanaa maire du ne ci bureau rek toog kaawul léwal moo fi de. dama ma dégg. man ak El Hadj Ndiaye. waaw te moom 2S TV. waaw. takk <laughs> na ki <laughs> naa léegi moo yor xeere ca jam naa jo. <laughs> day jaay béton. booy booy ñoo commune. moom mi moo ko wax. ah, ah yow yaa ah yow yaa day on est dëkk bi ñaata dégg ba léegi on commence. xeere laaw. aywa tribunal bi pete ñaama naa bàyyi. wuy ma su fekkee mënoo nga jóg. da nga ëppal yow. wala ëppalu fa ayam rek waxal. ma ni waxal. affaire elle a safurla elle a fait des affaires. pete. wurusoogi. añam. xayralaaw. Alissane. dans le bar sur le barreau devant le procureur que personne ne parle sauf Ali Sène de Ali Sène. Ali Sène bii ma. ak ah, Sène nga wax. voilà eh, indi nu naar bi li ma bind naar bi nun xanaa naaru pël ma lu mu doon waaye dina wax lu leer tey. ñun moom lijjantiwuñu naar ak tubaab ak leneen na ci yam fii moom ku fi ñëw dangay leeral leeraloo nga ñam. kese naar la. déedéet adratuunu fële ma libi ah. waaw Liban. El Hadj Ndiaye nga ni. El Hadj Ndiaye <laughs> bàyyi ko rek makkala. <laughs> barke Rasulullah kenn xamul lii. Ah, ndeysaan. caay. Ndiaye nag waroon nañu cee ruus nag. ko ba ci kanam. dañ ko war indi naa day demoon rang pour ramasser. <laughs> ñu ne ko pas de ramasser. on a des petits. Eh, alisan sa feer yi na dañ hmm? maa la ko wax boo yobul bu dee da yom man nga ko caa taf ah xam nga lew lan moo fi indi léegi naa jox nan la semence yooyu ñetti yoon nga ne ko tareet te ni sa réew yi bàyyi la waaw nee na dara mm-hmm. yëf yi nu mu waaw monsieur le président oui je reconnais avoir reçu trois sommations. te avant recueil xotti. waaw kañ ko le mhm. mais quand leneen liñ ci teg moo ma jaaxal tuuti. leneen lan lañ ci teg. Euh, parce que si je ma me trompe waaye dafa ne dama ko corrompre ak yeneen yoo xam ni man xaw ma sax yëguma tinuma waaw loolu la daal. léegi situation bi nan la demee ba nga dikk fii laay laaj. Euh, sommation bi ma njëkk a indil. dafa hmm. fekkoon ma nekk ci kër gi di ko def réflexion moom mu tollu si biti xool kër gi nu mu mel rek mu uh-huh. foog ni kër gi baaxul quoi uh-huh. donc mu ne naa dindi yëpp ma ne ko non ça c'est pas possible et puis en plus moom bougé sax bureau uh-huh. waaw noonu daal la demee waaw jërëjëf ah! ana jibi <laughs> booy <laughs> na nga def xam nga man Sénégal lii vraiment c'est c'est agréable agréable ah Kouz waaye bi li mu wax na doo ci xam. bonjour monsieur le président. bonjour. Euh, je suis monsieur Djibril Diallo. Eh? sous-préfet de Dakar Plateau. monsieur le président. oui. kii taxaw fii man maa ko indi. monsieur le président. Mm-hmm. kii dafa yor benn immeuble. ci centre bi. Mm-hmm. mais monsieur le président immeuble bi boo ko rombee bu ne la ay nit mu ngi fi nga ne non non. billaay ndeysaan presque léegi mu daanu. Mm-hmm. monsieur le président. Mm-hmm. je l'ai envoyé trois fois lettre de sommation. Mm-hmm. mu xotti ko. monsieur le président waxatuma loolu. il a essayé de me di ma jëndee xaalis. Eh. monsieur le président jógeetuma foofu. mu naan ma daf may boole jigéen. Eh. mais monsieur le président. Uh-huh. en tant que préfet. Mm-hmm. Euh, te dëkk bi am na yoon. oui. Euh, c' est pour cela ma indi ko fi nii. Mm-hmm. merci monsieur le président. merci ah jërëjëf defe naa ni wax ji leer na nañ ku toll ni sous préfet. ak ni mu toll ci réew mi. jox la ndigal ni la defal nga xotti kayit ga. loolu après naa ci dikk. ak yeneen yu sew ya ca ne. yow moom Ali bu nu paree dinañ xam koo yeb. ah sa kaasulu la parole yow lan la waaw waaw waaw apollo soja yaa de yaa eh eh pare nga eh, ah ah, ah. waroo laal ah. tekki say casque teg bu la porte parole dañ lay tëj fii moom rien personne n'est au-dessus de la loi tout le monde en haut ba dina leer dugalal rek say casque bu dégloo ti nag yawit ah Saka Zulu tu as la parole yow. monsieur le président merci beaucoup mais sama client bi ñuy taxaw fii de par son humilité moo tax mu taxaw fii mais bu ko neexoon doxalee naneen. wallaay ndeysaan. kii monsieur le président il concourt au maintien de la sécurité. et mhm. veille à la protection de la population. kii ci biir liggéeyam mu romb kër gi di waaj a daanu mu woo monsieur Ali Zen ba mu ñëw avertir ko avant mu koy jox ay sommation. jox na ko trois fois sommation te sommation bu ci nekk daf ko koo jox pour à ce mu génnee ñi nga xamante si nii ñi ngi ci biir kër gi te seen bakkan nañ ci xottu gerte. Mm-hmm. yóbbu leen faneen le temps que muy réfectionné waat kër gi monsieur Alizène bañ essayer corrompre sama client. dégg nga lii ñu ni déetawaay ñu koy suluwaay. objection monsieur ah, yow. te xam nga lan la loi wax ci loolu monsieur le président dan la sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans à dix ans. dëgg la et d'une amende double de la valeur des promesses agréées. jërëjëf. ou des choses reçues. Mhm. monsieur le président. jërëjëf sa kii loolu la def. jërëjëf man li ma lay ñaan. Mhm. te maa ngi lay dégg chaque jour boo toogee ci tribunal bi naan la loi c'est la loi. du dañ donc veuillez appliquer la loi car la loi c'est la loi. jërëjëf sa kaasulu jërëjëf ah <coughs> tu la parole yow. um, thank you very much and good afternoon, sir. Like. barke rasu xoolal. président barke rasu xoolal bi xoolal. bonsoir la wax euh. da koy wax ci olof. da koy da koy wax ci olof. maa ngi lay nuyu monsieur le président di la jox. waxal li ngay wax ci olof da nga koy wax ci olof. maa ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay merci beaucoup. ah Bouly ah, monsieur le procureur. maître Diallo monsieur le président. jaay doole baaxul. ci ku mu mën a doon. tooñ baaxul. loi bi daf ci nekk pour ñëpp. monsieur le président xam nga dara gënul metti nit tabax këram def ci ay milliards nga xëy un bon matin rek nga ni ko na ko daaneel. parce que tout simplement kër gi fi mu nekk c'est en centre ville. et que daf ko war a daaneel je pense que loolu lu ñu war a xoolaat te monsieur le président man j'ai pris des photos waaw oui j'ai pris des photos hmm. la maison n'est pas aussi catastrophique qu'on le dise waaye catastrophe non non non non te moom boo xoolee il a déjà commencé des travaux di réfectionné waat kër te monsieur le président hmm. ñëpp xam nañ ni loi bi dafa am lu mu tëral bi ko bi ñu ko indilee sommation wax ko ni na na génne client yi pour daaneel kër gi il a il a pris un huissier pour mu joxe préavis de congé pour ñooñu mën a génn pour mu mën a defaraat kër gi mais ñëpp xam nañ ni préavis de congé monsieur monsieur le président dafa am lu ci loi bi wax. Mm-hmm. parce que préavis de congé tey boo ko joxee nit ki tu dois respecter un préavis de six mois en cas de manquement ou condition prévue le bailleur monsieur le président devra au locataire une indemnité équivalent à dix huit mois xam nga ni loolu. sax yombul objection monsieur le président. monsieur le président donc foog ñu may ko temps. temps ñetti yoon. non non parce que là monsieur. mais kan moo leen wax ni yor na fonds yoo xam ni mën na ko daanelee kër gi defaraat. kër gi ma bees si kaw nit ñi nag. yow eh. moi man je sais que ni euh, monsieur le sous-préfet avec tout le respect que je vous dois sa liggéey ngay def parce que quand même vous êtes là pour euh, aar population bi. mais quand mbagg du yenu mais xam na lu bopp attan bàyyi leen population bi ngeen di teg ay métit eh. monsieur le euh, monsieur le sous-préfet je suis désolé objection monsieur le président je suis désolé fii tey wax nga ba pare pare gu ma laisse-moi terminer quand même yow laay déglu laisse-moi terminer kii dafa yor njaboot monsieur le président mënuñ mënuñu xëy un bon matin rek ni ko na waddal kër gi mhm. ana xaalis bi mhm. quand dañ ko may temps dañ ko may temps déjà euh, mu dajale somme boo xamante ni si tey même bu ci daaneele kër gi dina ko mën a defaraat mm-hmm. n'est-ce mm-hmm. kon nañ bàyyi jaay doole jaay doole baaxul baykat bi nee na jaay doole baaxul nañ bàyyi jaay doole voilà léegi ce que je vous demande waaw ce que je vous demande mm. mooy ñu bàyyi sama client mm-hmm. ñu may ko délai deux ans pour mu récolter déjà xaalis bu mën a wadalee kër gi pour tabaxaat ko. Mhm. loolu laa lay ñaan. mayuma la ko eh, du du ñaan sax. mayuma la ko exiger eh balaa ngay continuer mayuma la ko. waaye yëpp xam nga ko ndax doxa da ngay baali rek nga naan ba waay wi nee na xam nga ki ko way kay yow Youssou Ndour fu mu dem nga topp ko. xam nga yow am pour man man ma lay eh, ñaan. gisuma xam nga kii dóor na la léegi nga sauvé bi baa ma la dóoree da dee yow. Mhm, mhm, voilà booy wax ji dox na. dama da am pour ma yow sa kër moo gën a bon ci kër yëpp. waaw j'ai vu ta maison maa ca loo ca léegi la moo tax waddaloo ko. day defar benn kër mi taw nga parce que jamal fële waay jeex na. loolu nag moo war a jeex Sénégal kii dañ koy may temps par. kenn may ko temps. dañ koy may loola ni seet eh, jeex la parole yow ma xam ndax eh. jeex la parole may ma rek waay kii xamul waay xamul li xew bàyyi ko jàpp dafa gaaw ah. jàpp dafa gaaw moi je vais saisir la cour des comptes waay servir la cour des légendes <coughs> Jibi Diallo mën ngaa toog. jërëjëf monsieur le préfet jërëjëf. kon rek yow. ah yow tu as la parole. merci beaucoup monsieur le eh, président dégg day dem mag. vas-y. monsieur le président. Jibi jàll ce préfet dafa def benn acte boo xam ne dama naan acte de citoyenneté la. ndax tey bu ko neexoon wane kattanam wane doole tey bu ko neexoon du moom mooy ñëw fii am nañu ko fa war a taxawal mais dafa summi yëre. sous tey nekk simple citoyen ñu taxaw fii. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. Alizane ce monsieur monsieur Diallo daf laa bëgg a dimbale il veut te sauver moom liggéeyam aar kaaraange goxam da cee bokk Alizane seen kër ñaata at yaa ngi gis kër gi mu ngi dox ñaata at bañ ko tabaxee léegi. man nag damaa judd fekk ko. da ngaa fekk ko ñaata nga am. dégg nga lii. man am naa presque trente cinq ans. wuy yaay presque trente cinq ans ko. si ko ak léegi ëpp na plus de quarante ans moom newul la génnal wuti feneen kër daf ne la génneel ñi fi defaraat kër gi. il veut moom son mooy fexe askanam seen sécurité bi am. wax dëgg yàlla jéem a aar askanam. yow nga bañ na doo ko ci jàppale. ñoo ko gisandoo ñun ñëpp monsieur président ba pare mi wax mu koy corrompre. Mm-hmm. xaalis doyul mu yebal jigéen jox la sommation trois fois ñëwoo dégg naa bu ci mujj kaa xotti. wallaahi ndeysaan. kii daf ñoo yab comme nag dafa yab réew mi yab mu ne sax ñun la yab. ñun ñëpp la yab ñun les personnes de droit ñun ñu yor loi bi. ñëpp la yab léegi je vous demande qu'une chose monsieur le président. Mhm. appliquer ce que le droit. jërëjëf waay. Eh, yow wuy ma fii du sa kër yow nga ay tànk noonu te yoroo dara sa coow téeméer boobu wàcce sa tànk yi bu fekkee far ngay wut noonu dañoo occupé mhm. sa tànk na wàcc. bëgg ngeen góor trop de taamu ko ñooy tribunal bi loom ci tànk eh xool yow man am may ma consommé li may wax man du sa yoon la moo tax muy acc ay tànk di jàkkaarloo ma batan waay ñun dañoo occupé dana am ay ay soxna am yéen jaay da topp bëggunu la ay ay tànk may na ko ne sa kër xamal fële waay es kii lay ñu rool kii yar borom bàjjan yu bari yi nday jaam sama bàjjan borom la di <laughs> ñetti bàjjanam gaañoo la fay gaañoogul kon feebar na. am sinistis sinistis doy na bi ñu koy wax fekke woo ko bu ko leeralal de ko mbiite ah, ah Alisen merci monsieur le préfet li nga def nii moom la ñu bëgg lu leer ñëpp war a def ci réew mi ku nu fi takkal ndombal tànk bu lëndëm da nga war a dem taxaw mu leer na lay leer looy waxati na leer oh, nii nga ko defee nii la leere ndox la ci bis bi jërëjëf oh, kanta yow alisen yëpp ay nit mënul fee fee weefu kër gi ba nga juddoo sa maam dëkkoon doomam dëkk fa doomam gaañu beneen doomam dëkk fa sa baay dëkk fa gaañu nga res location ba fanweeri at xanaa fanweeri at ku ko luyee kër man ko defar juróomi at yu da nga dappa daaxe teg ah ay nit di ko di di di di wóoru ndax mu daanu seen kaw ñu jox la semence yoo nga xottu ko tu te prends pour qui parce que da nga xaalis bi ci gën a ñaaw ngay dem di corrompre koo xamante ni il pour la loi ñëpp ak nekk ñu ay corrompu ah félicitations monsieur Djibi Diallo li nga def vraiment kontaan na may ma ko gën a xam may ma waa yow est-ce que ma toogee boor bi da ngay wàcc taabal bi soo mënoon kay ngay wàcc taabal bi. Ah, moo warul am ci bi réew yow jox nañ la sommation bi gën a buy ngay xotti sommation di jaay réew yaay kan ah yow kon ñu ngay luwe ñoom duñu ay nit yow mi encaissé xaalis ay nit bu daanoo seen kaw nga dem joxe benn cent mille leen di xaale loolooy sa liggéey ah loolooy sa liggéey loolu nga dem parce que boo juboon buñ la waxee génnal ñu defaraat kër gi da nangu am déet waaye nanguwoo ngay dem di korom pour koo xamante ne kii ndeysaan moom ku ne xam na moom lislaamam ak diineem comme nag loolu mooy sa liggéey ah, ñaataat bi moo ñu waxoon sax yow. lu tax ah, xam nga juróomi at ngay tëj jox ji bi jàll mi ndàmpaay ñaari milliards maa la ko wax te di ko xeeb ah, yaaram. jëla ki yóbbul ma ci biir monsieur Jabi Diallo pardon pour le respect ñu indi ma wax la benn oh vas-y. Jabi Diallo Argaye. eh demal nii ngay wen di fël-fël nii. Jibi eh, Jibson viens ici. oui man ngeen parce que dama koy nommé benn tour bu bees mont toog numéro téléphone ma. ala wóob. ëppal trop waay. sama mbokkal. au nom de la loi yow moom déjà au nom de lay jox bu bees. parce que lii nga def nii. kanam gi nga xamante ni mat na quartier. au oh, nom de la dama lay jox tur bu bees rek inter yaa ngi koy seetaana ah. xam nga moom bëggul dara ndeysaan loi rek la bëgg je te nomme rek inter <laughs> merci ah. merci nooto numéro nooto numéro waay jibi yaa ngi yàq liggéey bi de yaa ngi yàq liggéey bi de Fall wuy ma kañ tamit <laughs> bàyyi kii wuy ma toxoogoo ah. mais monsieur le président yéen tamit bàyyi leen kii day liggéey dégg dem maa ngi fi mu nekkoon <laughs> vas-y man nga laal après nga jaar <laughs> jaru ko jaru ko garaawul merci merci. dañ fa jaar. bàyyi kii. dañ fa jaar. demal demal merci. waaw si dañ fa jaar. demal demal rik demal. dañ fa jaar. <laughs> su la wàcc yàlla na dee. koy wàcc. te noonu la wàcce na neex. kon ngaa dee sax. Eh, eh, la séance est levée yéen. ah séance est levée dem leen. ñoo ñu nga fi nekk